Macky ma xamal la que le président Macky Sall sa laay wax ñu ngi lay lëre lan la sa itinéraire corniche ngay jógee jaar rue 6 jaar rue 19 ñu ñëw rue 19 angle 8 ñab-ñabal fa ñëw angle euh, kii bi 12 bi ñab-ñabal fa comme ça ñu ne Médina waa Médina ñoo ngi souffrir waa Médina ñoo ngi souffrir autorité ku nekk Médina wax nga jeunesse bi wax na le maire wax na ñëpp wax nañu il est temps Médina gars yi yabuñu ñu woon nag ñoo ngi ñuy bëgg a yab qu'on se dise la vérité ñoo ngi a yab waa Médina parce que mënuñu ñëw fekk ay tali yoo ne ñu defaroon ko bu baax ngeen ñëw toj canalisation lépp a yàqu Médina amul fa oto jaar gis ngeen Médina léegi taxi sax na nga tu fi dugg ngeen bëgg ñëw pour lu neex président Macky Sall moo tax ngeen bëgg a ñab-ñabal fii nee naa leen gars yi loolu la gars yi wala woon sax ñëkk a nangu kenn warul woon laal benn tali tant que defuñu tali Médina yëpp di waa waa Médina yëpp nu ñu jug ci lii bàyyi mu jeex ñu on en a marre marre marre sonn nañu quoi